gëm nag ñu ngi ko saraawoon ci lislaam ci jëf ji yiw ci jiw ji mooy mottali ngëm jën ahli sunna tool nag mooy dana dolleku ci dolleku iman dana dolleku ci dolleku jëf ji yiw nag noonu dana wàññeeku ci wàññeeku jëf ji yiw ci luñ nekkoon wax nañ ci ay te nag ñoo ngi indi firnde bu wane ak dollekoom ak wàññeekoom aqliyan wa naqliyan fii wàllu tawxiid dafa soxla dalilu aqli nu mu soxla dalilu naqli dalilu aqli mooy firnde boo xam ne xel moo ko andi dalilu naqli nag mooy nas bu sax ci alquran wala sunna ñu jëkkee dalilu aqli xel lan la wax ci doolu ngëm ak wàññi koom loolu moo tax mu ni wamal aqlu wamal aqliya fii annahu law lam tatafaawat xaqiqatul iman bi ziyadati wa nuqsaan la kaana imaanu ahadil umma la kaana imaanu ahadil umma musaawiyan li imaani anbiya alayhim salaam wal malaayika fi lan la bëgg xel bëgg wax nee na ngëm si boppam bu fekkoon ne ëppantiwul woon ci doole ko wàññeent kon ngëmu lenn jullit ñi day daali toloog ngëmu malaaka yi ak ngëmu mu yi alayhim ndax kon comme que wut ëppantewul yëpp tolloo jëf yi day daal tolloo bal imaanul munhamikiina alal fusuuq wal fujuur wal maasi da musaawiyan li imaani anbiya wal malaayika nee na waxul sax leneen ni jullit ñi waaye ñi gën a ñàkk fayda ci ñoom ñiy xuus ci bàkkaar bu dul jeex ñiy xuus ci ndëng kon seen ngëm dana tolloo ngëm yonente alayhi salaam ak ngëm malaayika yi fii ngëm a ngi tolloo wutiwul kon ngëm ëppante loolu moo tax mu ne wa lazim baatil dalil mantiqi lazim mooy lan al musaawaat kon tooloo gi amul tooloo kon amul fa kazalika malzum loolu ñu war a itam baatil lan mooy malzum wa adamu tafawut bi ziyaadati wa nuqsaan ñàkk a yemoo ñàkk a wuute ngëm ci jëf ju baax jëf ju bon nee na loolu amul ndax jëf ju baax daf koy suuxat mu màgg jëf ju bon daf koy daaneel koy wawal ngëm di wàññiku kon ci noonu xel wane na ngëm day yokku ak di wàññiku wa ama sunna ñëw na ci xadis xawluhu sallallahu alayhi wa sallam libni omara lama saalo bu mu ko laajee ibn Umar radiyallahu anhuma dafa laaj nabi sallallahu alayhi wa sallam al iman yaziidu wa yanqus sual saabi jalil moo ne yéen ci waaw ngëm ndax doole ko day day doole ko ak di wàññiku déglu question boobu ci sunna lan la nabi tontu xaal naam yaziidu xatta yadxulu jenn sahibu aw yazidu xata yudxila al janna sahibahu yëpp ci wàllu leeraam yonent bi ni ko waaw ngëm dana dolliku di dolliku bee boroom ngëm googu dugal janna ci taa bu ñu wax taa moo di def farata ak lu ci sunna moytu lu xaraam si li ngëm di suuxatoo di suuxat bay dugal boroom aljanna waaye kooku ci wàllu ijaab ñu nexet salbiya wa yanqusu ay iman dala wàññeeku bi nasl xadis xata yudxila saahibahu naara kon nga mu noonu dana wàññeeku noonu mu doole ko waaye wàññante ga itam day wàññeeku ba lu ci ngëm gi jeex xool bi wow xool boobu day mujj dee comme daf feebaroon ci bàkkaar yu bare feebar nag bu yàggee di dolliku dee la jëm xool ba day mujje wow dootul di xool boo amul nag safaral lay mujje kooku ci dalilu xel ama dalil ama naqliya firnde bu wane ngëm day wàññeeku di yokk tollowul nee na bare na am na ci am na ci sunna fi yenn nusuus kasira waarida fi hada shan fi hada almaana am na yaxi firnde yu ci mbir moomu kitaab ak sunna nee na ñëw ci quran qawli taala ida tuliyat alayhim ayatuhu zaadathum imaanan zaadathum imaanan foofu tudd ziyaada bu ñu si ñoom aaya alquran julli ñaa ngi noonu mu dolli kon dolli ngëm la fa nekkoon yokku na ndax baatu ziyaada kon ngëm ngu doon day dolli ko ci jàng alxuraan ji ñu jàng si jullit boo xam ne bii alxuraan ji jotu ko woon wala dégg ko nu ko war wala boo màqanti na ko daggi na ko ngëmam gën a yokku waxu yàlla jumoo ne li yasdaadu imaanan maa imaanihim gis nga ba tey ziyaada li yasdaadu ngir ñu dolliku ngëm gu ànd ak ngëm gu ñu amoon kon ngëm yokku na kon nasul quran wane na ngëm day yokku fi xëri marra wa qawluhu taala xama allazina amanu daal ñi nga xam ne gëm nañu fa zaadum dana dolli leen imaan ngëm yëpp ak ci maana yu mel nii nee na na ci Qur'an moo tax mu ni ñi xam ni gëm nañu dana leen dolli ngëm kon ngëm dolleku na ci aaya alxuraan ñuy jàng ci ay jullit ngëm gu fa nekkoon daal ko jëfe ga daal gën rafet bu dee lu leen aaye woon moytu ko ñu gën ko sore ko koy delleeku dooleeku ngëm firnde bu tukkee ci alquranul karim fi damm ala zalik ni lan la bëgg a wax fi damm ala zalik kullama yaqbalu ziyada yaqbalu nuqs loolu waxin la qaida la bu rëy lépp loo xam ne lii nangu na ولولنت كون نانغو نو وانيانت واو قايد لا بروي بو خامني ريغل لا بو ني بيزي لول مون تخول ني نان الكمال لله يالا مومو تي تي لولو وانيانت يوكو سبحانه وتعالى كون في نيوني واورد على هذه الدميمه وخين لا ايمان الانبياء عليهم السلام ñu ni imaam anbiya alayhi salaam dëgg la nangu na dollu ko waaye neen nangu kon nan la ñuy def ak moom am na tont ujiba bi annahu xaraja li wujubi al isma ad daaima al mania min naqsihi waxin la nga mu yonte alayhi salaam ni ñu ko jàng woon ci bind bi passé nangu na ndolleku comme nga mu jullit ñi waaye moom nangul wàññiku waaye lan moo tax yàlla moo leen defal mucc mucc ci lépp luy wàññi ngëm muy bàkkaar kon loolu jagleel la gu leen yàlla jagleel seen imaan day dolliku toujours ne ko imaanu ñu dolliku waaye seen ngëm du wàññiku nek yalla natul len julli ni ci yenn façon bakkaar yenn façon mo yalla ba seen ngëm di wàññiku mu lol loolu mooy lu ñu wax ci dolliku ngëm ak wàññikoom te nañu dem ci buntu bu buntu bu mom lay wax sifatul wajiba lillahi taala melo yu war ci jëmi suñu borom tabaraku taala lolo tax fa wajibun lahul wujudu fi ci yalla tabaraku taala bo jeng tawhid ya ngi ci wujud wujud moy am am mutlaq xam-xamu tawhid ci gëstum ci gi fànn ñu tuddi ko tawhid ñetti xaj la am na xaaj bu ñu tudde ilahiyaat ilahiyaat jëmu ila ndax nee na hiya almasail almabxuusu fiha ama yataallaqu bil ilah azza wa bil ilah ci buur wala ci yàlla xam-xam bi gëstu kan mooy yàlla ak nan la mel boobu xam-xam lu ñu tuddee ilahiyaat ma xaaj gën mag ci xaaju jàngale tawxid xaaj goo xam ne moo sellal fànn googu ñaareel bi ñu ngi ko woy nubuwaat lan mooy nubuwaat mu hiya al masailu allati yubxasu fiha amma yataallaqu bil anbiya alayhim salaam xaaj ñaareel bi ci xam fànnu tawxid nee na mu ngi aju ci masala yi gëstu yonent yi alayhim salaam ñooy ñan nan ñu mel melo yoo xam ni xàmmee ko nañu ko yeneen jullit ñi dul yonent alayhim salaam kooku it xaaj la boo xam ni boo am solo la boo xamul doo xam sa borom tabaaraka taala خدني تيمون نجري السمعيات لن مو سمعيات السمعيات دان كوي غيبيات لن كو ديكس ينوب موت نيوان كو السمعيات واي نك لن كو جيس نيوبت نيوان كو غيبيات كون بوت قول موكوي كم وهي المسائل التي لا تتلقى أحكامها إلا من السمعي نوني كي قاملي masala yoo xam ni seen atte doo ko mën dégg lu dul ci chariatu muhammadin alquran la koy wax wala sunna mënoo ko gisee feneen kal janna wan naar comme àjjana am na bind nañ ko pare sawara am na bind nañ ko pare yooyu mooy sam iyaat kenn gisugu ko dégg rek dafa am atte nuñ koy jàngee kooku mooy muqaddima bi nga xam ni moom lu ñuy jëkk dugg ci fànnu tawxiid dafa ni woon fa waajibun lawul wujud commencé bind maanaam kaw na waajibul wujud am gi mu am nee na waajib la waajib mooy lu sax lu man mas dañ fii ci ta xam-xamu tawxiid من كونه واجب الوجود أنه لا يجوز على العدم فبقى جانجل نك إلهيات تي الله سبحانه وتعالى ذات الله خلنا نكو ميكان أم غوغ مو أم نينا واجب له داخ ننغول نيك ولا يقبل العدم لا أزلا ولا أبدا ñàkk nangu ko ñàkk mooy am temps amul moo tax mu ni la azalan asal mooy ci njëlbeen loolu moo tax ñenn ulama yi di wax am googu ñoom dana ko jàngal fële ca xidam boo ko seetee ci amug midafon mu wute midafon am na boo nee diw ali diw diw ko jur am na temps ali juddoogul même yaay ma bàyyi moomu am na temps juddoogul kooku nangu la ñàkk na ñàkkoon na ali moom bu dundee leen ni jamono day dee mu am ñàkkaat ci bu mu amee yooyu la ni du melu yàlla tabaraka wa loolu moo tax ma ni maanaam kaw no waajibul wujud annahu la yajuusu alil adam wala yaqbalul adam la azalan wala abadan مم لنيو واخ ليس لأولية ابتداء ولا لآخريتي انقداء كوم أزلي ديال بينام أمول تامبلي أبدي موجام دو جيخ تبارك وتعالى والدليل على وجوب الوجوب في شوالو توحيد لب لوف إن في اندي أقلي ونقلي لنوان يالله تبارك وتعالى am gii mu am amul fu mu tàmbale amul fu mu yem am na nga ci mantiq allahu yajibu iftiqaarul aalamu ilayhi yajibu iftiq iftiqaarul aalami ilayhi ma ngoog jëri aalami yàlla warna na mbinda fon yep ci mom lepp luñu bind da ko soxlo ndax bind ga tax li bind dafa soxlo ñu bind ka muni ni lan wa kullu man wajaba iftiqaarul aalami ilay fa wajibul wujud beneen nga képp koo xam ni mbindaafan yépp du ñu ci mom ko amam dafa war ndax soxlawul ci kenn foog mu am lan mooy résultat lan lay génn yanteju allahu waajibul wujud te lil mantiqi kon yàlla amam googu dafa war bu ñëwee ñu dem ci dalilu suxra gis nga nu mu ko waxee dalilu suxra day ñëw gannaaw bu indee dalil bu wan ni yàlla tabaraka lépp luy mbindaafal da ko soxla képp koo xam ni nag lépp luy mbindaafal daf ko soxla kooku amam lu mënta ñàkk la wajib la loolu lay génne kon yàlla amam wujub amam lu war la dalil suxra anal aalam xaadisu benn ngoom lépp luy mbindaafal aalam daa sosu wa kullu xaadisin lépp lu sosu yajibu war na iftiqaaru soxloom ilaa muhdis ko ko sos kooku koy amul amul xel ñaar lu judd am lu ko jur isan allahu mujud mujud loolu bëgg wax ndax moo sos lépp njëkkal dara di sosu te moom sosowul kooku mooy dalil suxra amadalil kubra annahu law lam yakun waajib wujud yaa ngi jàng mantiq yàlla bu nekkuloon koo xam ni amam dafa war la kaana jaizuhu ay la kaana jaizul wujud kon amam day dagan comme suñu am nun ñi bu ko defee fa yaftaxiru ila muhdis mu soxla ko bind ndax nun duñu soxla ku ñu bind wa yaftaxiru muhdisu ila muhdis Kebinun idam, itam soxla ko bind kooku ko bindoon kooku soxla ko bind lolou moy lan fa in raja al amr ila al awal mubasharatan aw bi wasita fa dawru li ñu wax dawru ci walu tawhid masalan fukki minafan ku jëkki kii bind ku ñaareel ki ku ñaareel ki bind ku ñetteel ki ku ñetteel ki bind ku ñeenteel ki ku ñeenteel ki bind ku juróomeel ki ku juróomeel ki bind ku juróom-benneel ki ku juróom ki bind ku juróom-ñaareel ki ku juróom-ñaareel ki bind ku juróom-ñetteel ku juróom-ñetteel ki bind ku juróom-ñeenteel ki ku juróom-ñeenteel ki bind ku fukkeel ki ku fukkeel ki itam dem bind ku jëkk ka kii mooy dawru ñoom ñëpp ku nekk bind am na kul bind seen biir اللي اللي مدورو باطل نين ملني نين يونو امنا كل بنت موتا موني في الدورو وإن تتابعت المهدسون واحد بعد واحد fekkee nag tey duñ jël ci fukk ñooñu ki bind kii ki bind kii ki bind kii ki bind kii ila ma la nihaya léegi tey fukkil ba tey bindul ku jëkk ka da bind keneen onze kooku bind keneen ñu jëm amuñul limite kooku mooy tasalsul kooku baatil ndax lan ki jëkk bind soxla na ko bind soxla na ko bind ki ñu mujj bind su mënut bind dara lot na tasalsul ni mu nekk baatil noonu la dëwru baaxul kon bii dafa ni binduñu seen bopp duñ leen bind موتامون وكل من الدور التسلسل محال الجنبلة تفيتي والتوحيد حرام محال غيوخ لمن تنك الجنبي فما أدى إليه وافتخار إلى مهلس محال لب لو خمني نك دفا جمتي لو حال دا دا الجنبي كون بنا فنشيني أمنا كلين بنت ma adda ilay wa kawnu laysa waajiban wujud lépp loo xam ne dalay delloo si nii yàlla amam ga nekkul wajib mu xàll daal la ñu bëgg wax izan istixaala kawnu laysa waajiban wujud yàlla jombe na ñu naan amam nga nekkul jul war jombe na kon lan moo sax sabata kawnu waajib waajibul wujud kooku nu waajibul wujud moo sax yàlla amam nga dafa sax moom kenn la wal matlub kon tawhid nga noonu ci dalilu mantiqi yàlla wal mawjud am goo xam ni xel nangu na ko am googu incha allah si lu ñu bind tey waajibul wujud beneen incha allah ñu taxu jëm ci xidam yàlla noonu lañ ko jànge wujud bii dafa ami melo yu ko ëmb melo yuñ jàng yëpp ci ilahiyaat incha allah si lay dellu si ñu may bakkan ak tal ñu jamono foofu suñu baaram bay may ñu fekke ak tal yàlla ñu yàlla def julit ñu xam seen borom xam ay meloom xam yonent yi xam seen bopp xam nañoo jaamu suñ borom tabaraka wa taala wa billahi tawfiq min hidaya wa sallallahu ala muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim assalaamu aleykum wa barakatu